dafay neex danaa la wax lu mu mas a wax euh, tëjee ko ko booba dañ koo liggéeyal dañ koy liggéeyal ay normalité ba màggal gi dégg si nga xam ne lañ waroon a waajal ci màggal ak lañ waroon def yëpp mujj na taluñu ko ma toog ba timis ndaw ñëw wooma ma fekk ko ca keesu biir ga mu ne moom laa ilaha illallah man de ki la woo sax damaa dama dama yaakaar dafa yeex man de sëñ Tuubaa dama digal màggal ko ren kenn bañ leen koo dàqale ci kuy tàbb ci dëkk bi xam nga lu ma ciy tàmbalee ma ne ko déedéet mu ne ma li mu téeméer ak ñaar fukk ak junni eh, nab yun mursal ku ne la jox dërëm dinaa la joxeel dërëm wañu ko muy 620 mille mu teg sama loxo daal ni seex mu ñëw mun a kay yóbbu ko ca gaay ma dem def dinaa ci teg nangami kee saak bi suukar dinaa ci teg nangami kee sawar ga dinaa ci teg nangami wët bërigoy diwlin ay bërigo laa la wax de boobu ñu benn bërigo diwlin sax mënuñu ko jeexal dégg nga di ko lim ba kenn xamul nekk ci jël na nee ma nee na màggalu ren ku dugg ci dëkk bi may ma moom seetaan ma ma seetaan leen ba mu dàq leen ak màggal waaye li ci gën a yéem at ma ba mu delsee ca ba màggal ko desee ñeenti weer laa ko fekk ca xalwatu kër Karim Fall ma ne ko ñun de màggal gi lañ ci war a def yépp mu jëm ci màggal gi bi nga ñuy defalee li ngay defoon tax na ñun waaj nañ ko ba lépp am nañ ko ba yow sax li ñu la war a jox génn ko mun ma déedéet nag dañuy naawandoo tàggandoo mu <laughs> war loo leen defal ba noppi génn dama génn sama part man dama ko nangu dégg nga waaye naxante nañu ba fexe ba rek ba dugal li ñu ko bëggoon jox lépp ci li ci suñuy addiya ca lañ mujjee am jaaxle ci màggalu Seexul Xaddim bu ñëwee kon kenn lu kenn mënta jeexal nag loo ca wax rek mu baax te ay borom xel la la la laay waxal ñoom laa toogal xam naa ne lu tuuti li ma wax lañ ci xam moo koy ëpp ba xam ci lu ma xam te kenn ku nekk nag xalifa sëñ Tuubaa bu wéeteeg yow da ngay def ni yow rekk yaa taxoon ñu yabal si ko ñu ñu yabal ko ñu koy liggéeyloo kon kenn ku nekk ci yéen mu ngi mu ngi lim tontu li muy laaj li mu bëgg a xam